ñoo ngi fii ci quartier Farabougou Farabougou nag di benn quartier ci quartier yi ci commune bu Guinguinéo mën nañu ne mooy ñaareelu quartier bi nga xam ne rek sosu na ci Guinguinéo gannaaw Thiréer Farabougou depuis ba autorités yi nag tàmbalee defaraat yoon yi nga xam ne rek mi ngi ci biir dëkk bi yoon wi nga xam ne rek mooy tali bi waroon a jëm kër sëriñ bi jëm ci hôpitalu Farabougou bi nga xam ne moo waroon nekk premier phase liggéey bi ginnaaw yi nga xamante ne yu ci bëri pare na li waral nag liggéey bi daal di yéex ñu nemmeeku fi li nga xam ne rek mooy liggéeyu ONAS bi nga xam ne moom it tàmbali woon na li nga xam ne moo di programme am projet bi nga xam ne Farabougou ak campement ñoo ko sekk daal di gas yoon yi war a defaraat fi nga xam ne rek fala ndox yeeg yooyu war a jaar mais laata ñu tàmbalee liggéey bi gannaaw deux mille deux mille vingt deux ba tey liggéey bi bañ ko tàmbalee dafa jékki-jékki rek daal di arrêté ba nu ñu tàmbale waatee seen liggéey bàyyi fi ay pax bàyyi fi ay jafe-jafe yoo xam ne it jural na ko waa dëkk bi ba tax na population bi daa di amal ab laaj waaye it di woote ngir nan lañu ñu mën a def ba liggéeyu ONAS bi mën a yegg ngir tali bi mën a ñëw fii ci Farabougou ñu déglu ci population Farabougou. Euh, effectivement euh, prési euh, ONAS actuellement dafa tardé travaux yi. dégg nañ fi ay budget yi nga xamante ne voté nañ ko pour defar ay tali bon pratiquement gis nañ ne koñ yu conserne concerné ñoom tra seen travaux yi àgg na mais ñun Farabougou ñun depuis euh, travaux yi ba mu commencé ba léegi ñun ñun ñun gisaguñ suñu bopp gis nañ fi nag gars yi commencé nañ andi nañ fi ay xeer mais depuis lors travaux ONAS bi aussi moo bloqué euh, kii bi euh, construction tali bi te ONAS aussi bon mën naa ne yàq na yoon bi yoon bi dem si jumaa jeeg ci hôpital bi yëpp pratiquement boo xoolee ci image yi di nga gis ne yoon yi yàqu na même travaux poste de santé bu bees bi sax euh, matériels yi war a ñëw munu amu am munu munul accéder ci ci ci travaux bi directement dañ koy déposer foo xamante ne tey ak euh, fi travaux bi di am presque deux cent mètres bon ONAS moom euh, presque mën naa ne mois yi nii bloqué na affaire yu bëri bëri yàq na yoon yi aussi waaw accès hôpital bi accès euh, euh, jumaa bi aussi xam nga véhicules yi fi te nawet bi aussi surtout nawet bi nawet bi surtout nawet bi la gën a yàqu yoon yi parce que kàmb yi la def te euh, gis nañ ni yoonu hôpital bi aussi yoonu ndox la. sama sëriñ sama xarit Abdoulaye Camara ñu ngi lay nuyu bu baax ci taataan bii ngay taataan suñu xalaat. ci liggéey bii nga xamante ne euh, yàlla dogal na euh, suñu autorité yi ñoo ko may waa dëkk bi te yàlla dogal ñun ñu bokk ci ñi ñu may ci travaux yi yàlla dogal nag am comme ni ko sama rakk bi waxee muy Alaaji Diallo am travaux yu fi njëkkoon a ñëw euh, ñi ñu ko bokkaloon muy waa Kaneen ak waa Makodé Bar yàlla dogal na ñoom seen bés jeex na bu yàgg waaw mu des bu Farabugu te euh, yaakaar naa ne liggéey bi euh, Farabugu bokkoon na ci euh, ñi nga xamante ne waroon nañ maanaam njëkk pare ci biir dëkk bi waaye yàlla dogal na nance bi nga xamante ne moo fi nekk presque neuf mois yi ngi nii seen liggéey ba léegi mënut a noppi te ñun xamuñu lan moo waral loolu te nawet bii passé rek conséquence bi gis nañ ko rawatina man mi nga xamante ne bon dund naa ndax man daaw sama kër dafa inondé te loolu bokk na li tax mu gën a inondé ndax ndox bi fu mu doon jaar ba ñu ñëwee jal seen suuf foofu presque ndox bi dematut presque def naa une semaine ci biir ndox mi te loolu dañuy ñaawlu loolu. gannaaw ba ñu tàmbalee liggéey woowu ca deux mille atum deux mille vingt-deux ba tey. mu jural jafe-jafe ñi nga xam ne mooy population Farabougou ndax doon na danger ci xale yi waaye doon danger aussi it ci population Farabougou ngir kàmb yi nga xam ne ONAS def na ko fii ba tax na population bi di woote wit di ñaan autorité yi ñu gën leen a bàyyi xel gën leen a gëstu ndax Farabougou buñ ko waxee dëkku diine la te li nga xam ne moo di seen ziyaara annuel ñoo ngi koy waajal ci ay weer yi néew. ñu ñu ñu ñu ñu xel bu baax a baax. parce que gis nañu travaux yi koñ yu mu concerné yëpp koñ yi ñoom euh, seen seen seen travaux yi yegg na te ñun a présent gisaguñu dara jusqu'à présent gisaguñu dara te ñoo ngi waaj ay activité parce que suñu ziara annuelle bi bientôt deux trois mois te bëggoon nañ nag travaux yi yegg avant avant avant avant suñu suñu programme ziara bi. ñu ngi ñaani tamit autorités yi ñu góorgóorlu fii ak déwén nawetu déwén ñu ban cee lii liggéey bii bañ a euh, kii noppi balaa heure boobu ndax su noppiwul rek ñun ñooy ñëw sonn te suñu sonnee beneen mbir la ndax nit ki mënoo ne da ngay dem uti li ngay li li ngay dundee ba pare nekk ci ay situation yoo xamante ne day xaw a yéeme nañ góorgóorlu ñu ngi ñu ngi leen koy ñaanaat ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanaat autorités yi ñu góorgóorlu ba loolu ñu mën mën ñu cee dimbale fii ak maanaam suñu ziar bi ñu mën a euh, liggéey bi mën a pare ndax ziar bi doon na loo xamante ne ci Farabougou euh, lu rëy la te lii ma gis nii euh, yaakaar naa ne yoon yi nu mu mel nii mënta ànd ak suñu ziar bi ndax euh, nit ñi dañuy jóge gox yu fasanti ci biir réew mi kon liggéey bi su fi nekk te noppiwut yaakaar naa ne day indi ay gàllankoor yoo xamante ne daf ñuy sonal lool lool kon ñu ngi sàkku ci autorité yi ñu dimbale ñu ba lépp loo xamante ne dina tax liggéey bi gën a gaaw ak liggéey bi gën a ñoŋ ñu mën koo taxawal sinoo rek eh, daf ñuy indal ay jafe-jafe yu bëri ñu ngi koy sàkkuwaat ci ñoom ñu taxaw ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw Farabougou doon na ci goo xamante ne maanaam ay gor ay doomu gor ñoo fi ne te ba pare seen kaddu maanaam dañ koo respecté ndax ay lakkkat lañu te lakkkat moo di koo xamante ne su xasee jox kàddum rek maanaam moom maam faw kàddu mat ah yow nga war ko de xanaa loolu kese mooy tax maanaam mu bala waaye tànk moom mu ngi yaa ngi sa sàmm sa kàddu moom kàddoom da koy sàmm ah, te yàlla dogal na farabugu doomu farabugu moom loolu mooy seen maanaam euh, ngëm-ngëm te it doon nañ koo xamante ne ñu bëri jom lañ waaw xëy na nag yàlla moom mooy séddee lu ko neex waaye doon nañ ñoo xamante ni ñu bëri jom lañu ñu bëri sutura lañuy tamit kon loolu nekk na ci ay doomu farabugu ñoo xamante ne ñoom dañuy gëm seen bopp waaw kon loolu daal bokkoon na ci yi nga xamante ne xam nañ ko ci doomuy Farabugi jërëjëf